asalaamaaleykum mbokk yi Nguénié TV ñu leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay ginnaaw bi ñu jëlijee daral bi tey moom dañuy wane li ci marché bi maanaam genre lett xeetu make bi ak yenn ndogu diryanke yi dama bëgg nag sama caméraman nga jëlal ma place bi nga xamante ne ni Mbayang saar moom moo ko jiite ànd ceeg groupam di fas yéenee yi def def lu rafet si dëkk bi nag macha allah jëlal ma kii Melita la de waaw ca makeup ba la barki yonent bi mbayen ko makeupul baaxul Jalan jëlal ma nyoto donan. lett yi ñoo nyoto donan, soxna si lett yi ñoo tudd nan ah lett yi ñoo tudd ah waaw waaw ca ekaay bala masha allah masha allah soxna si dama bëgg nga jëlal ma mbay ak naka mu si jàmm sinon waa Nguéniène TV ñoo lay bëggee sama kameraman. xoolal sama caméraman waaw caméraman dama bëgg nga jëlal ma xale bu jigéen bu rafet bi macha allah moom mooy defar yu rafet yi waaw waaw jamono ji mbayang koo koo defalul baaxul barki yu doon bi lii la yàlla dogal. nga ne ñoo rek di yàq xale jigéen ñi. waaw wuy leen xale jigéen ñi nee daf leen di yàq del defar nag yow it nag. Ah, macha allah ngeen rafet rek. ah yàq leen ah, na fii lay xewee ci Ngéejeen TV. wa nekani wa ngeñen ni TV wa ngeñen ñu ñoo nekani ngeñen TV ñoo set ci salon bi nga xamanteni ni mo nek bir mbedem waaw salon baangi ni amna am effet yo xamanteni ni manam fu fu fu nek rek jigen na ngi ci wetam góor baxna jigen baxna waaw mom moy defar yu yaa ni jëlal ma sama mère bi ni ay no sa jam nii waaw macha allah waaw ca liisal bala waaw waaw mère te liisal bala barki yu nanti waaw eh, ah, mais lii lan la nii ca make-up ah, ah, waaw waaw ca muuñ bala ca moosaay bala barki yu bi ah waaw kay ku mënul boolu yaa ko barki yu bi waaw waaw soxna si ni ngay waajee sa tabaski macha am na jom ni ngay waajee sa tabaski am na jom eh, Nah, Assalamualaikum ini apa TV ñu ñoo nekkat ni tay di leen présenter suñu xarit suñu doomu ndey muy Sidi Sidi en même temps Sidi promo Sidi promoteur mom day ñaw en même temps day yëngu affaire de lamb ñukoy gëreum diko sante ci geste bobu nonu waaw parce que aar bi yaatu na bëri nañu ko mën a def te defuñ ko mais moom mu ci ciy góorgóorlu di ci soox en même temps ci tailleur bi jamono ji nag di kum ñawalul baaxul lu leer laa leen wax loolu man maa leen ko wax maa koy confirme nii man mii borom Nguéniène TV maa ngi leen di bëgge vraiment dama bëgg jëlal ma sama VIP yi ñu fay waa Nguéniène TV ñoo ñëwoon tey di la encouragé di la di la laaj nan ngay nan ngay dundee sa événement quoi. waaw événement yi waaw ñu yaa ma gën a xam métti woon na trop nag mais instant yàlla quoi. waaw métti woon na te ñoom ñu ngi ba tey. mais si di nooy def ak sa client gars yi nee nañ tailleur yi mooy loolu de te jamono ji dañu war a comprendre que ni dafa xat. waaw client yi moom dañoo dañoo si ñoom dañoo naqar dañoo dañoo dañoo compliqué trop surtout taxaw moom moo ma gën a lakkal quoi. waaw mais mais client yi tamit ñu leen di ñu leen di wax ne. Eh, liggéey bi yombul ngeen di ak tamit di baye xel gaay yi xam nga liggéey bi metul duñ nelew guddi duñ nelew bëccëg lepp pour dagal leen lu rafet pour mën and ci yeen and ak yeen ci bés bu rafet Bini, ni cameraman damaa bëgg jëlal ma sama jongo mo bu rafet bii nii macha allah tamit client Sidy la waaw client bu fidèle la kon dama bëgg jëlal ma place bi nga xamanteni mom la di euh ay ay client bi leen di wax ne bu yoon jeexul waxu jeex eh, ngeñen TV la plus proche on s'entend mieux ya ngeen jëf waa nekkaat nii waa Nguéniène TV waa ku wax tabaski wax ndugu dama bëgg nag tey ñu xool suñu yaay yi suñu yumpaañ yi suñu tante yi ah, ndugu bu rafet bi nga xamante ni moom lañ fas yéene andi si julli ji waaw tey nag sama caméraman ah, ginnaaw bañ jëlee ñi make up jël nga xam ne ñooy wat en même temps dañuy jëlaale ndugu yi nga xamante ni moo nekk si marché bi leen di présenté yii xeetu ndugu nga xamante ni tey jii nii bon moom lañ leen di waneel ah, di ànd ak sama caméraman Modou Gassama sama sama pro boobu noonu sama ndaana ndaanaan ñu ñëw ba fii nag di bége maa ngi bége ñëpp nag ku lim juum maa ngi bége ñëpp ku juum gars damay bañ bu nekk naa ma limoo ma da lim kii dama ma maa ngi bége ñëpp gars yi waaw maa ngi bége ñëpp euh, sama caméra ma bëgg nga jàll xoolal ma jëlal ma bagage jël jëlal ma jëlal ma kii waaw loolu xeetu soble bi ñu bëgg xam lan moo la andi si marché bi ak waajal tabaski bii. marché bi de li ma fi indi jënd ak jaay moo fi indi ñun nag kontaan nañ torop ci sa affaire bi ci li ngay liggéey ci Nguéniène TV bi. merci merci. ndax am nañ fi ay ati ati at te lii mosu fee am kon lii li fi amee ñun kontaan nañ bu baax a baax dañ lay sant di la gërëm amuñu sa fay. yàlla xiiwal bi gën a yokku liggéey bi gën a avancé mu ànd ak wér-wér le tabaski bi sant nañu yàlla ah. ñoo ngi koy waaj bu baax a baax mm-hmm. yàlla mu egg ak jàmm pare ci jàmm ak salaam incha waaw waaw waaw mbokki TV kii client bu fidèle la tamit reconnaissant waaw di leen xamal ne rek bu ñuy nangoo rek ñi dañuy bañ bu ñuy bañee ñi dañuy nangu te ñu xam ne ñun ñi geste bi ñu def nii nii pour euh, pour mu gën a rafet la rek yàq taxuñoo jóg pour ñenn ñi nga xamante ne dañuy sànni xeer di sànni track affaire yooyu noonu loolu ñoo jog dañuy defar gaay mais nak bon euh, yag nañ ci game bi mënu ñoo arrière lo euh, ca kaw ca kanam mais ñu ngi lay sante di la gëreum di wax nag tebeski bi ni yalla tegul kenn lu mënul ku nekk lo ci def rek na doon lo xamanteni dang da man bu mu la jaral ngay dem lebi bu mu la jaral ngay dem leneen lo xamanteni après dang koy dalay top wala ñu lay dégg ci leneen nay gëna rafet sama gaay ngéñeen tv la plus proche on s'entend mieux caméraman dama bëgg jëlal ma yenen ki thank you Aku sama cameraman dama am nga jégé ci nga jël ma sama VIP bi waaw lu mu watul baaxul jamono ji te bëgg nañ la naka mu gaay yaa ngi ci jàmm waa ngeen TV ñoo ñëwoon tey set la yow sama copain bi nguur waaw ñu ñëw xool ci bërëb bi te di la yokk courage rek la ñaanal que ni di la xamal que ni yoonu ndaw lu gaaw mais dëcce yow li ngay wattu sa lima de dëcce li mooy lan dëcc yaa ngi dégradé xale bi de jëlal ma nguur nguur dafa mel ni yaa ngi dégradé waa ji de. waaw mais wat bi naaj na trop. mais sama gaa yi ku bëgg wat bu rafet. ku bëgg ku bëgg wat bu rafet laa wax de ñëwal fii ci ci marché bi nga laajte place su dëcc ngóor wala dëcc ku mu watul rek baax lu leer laa leen wax caméraman maa bëgg nga jëlal ma képp koo xamante ne nii bon mu ngi bëggee place su bi maa ngi dem nag ba ko ñu ñëw dëcc maa ngi bëggee ñëpp zoom derramar Diz a quem se derramar Uma dor eu derramar Muita dor ao Que essa quem se my girl.